mooy maqsadum li tax ñuy def tan bi ak irshad bi maanaam eh, sama sëriñ bi di sëriñ bii di wax ngeen di ko dégg ah, sama sëriñ la ndax ci moom lay jàngee addis li gën a bari waaye xëy na ñoom dañoo xam loo xam ne nit ñi ci des xamuñu ko ba tax na bu ñu amee ay duut ci yenn yi dañuy dañuy foog te toog di déglu waaye eh, ñaari baat yi nga xam ne eh, réew mi ñu ngi koy coow benn bi mooy baat bi waa yi wax nii mooy dañoo bëgg nit jël nit ñi ci jaamu nit ñi te dem yóbbu leen ci jaamu yàlla mi borom nit ñi yàlla da lañu tubaa bind yaa ahlal barri yaa ahlal bahri uju li barri bahri saxaay waaw moom de loolu la wax suñ tubaab de bàyyi leen jaamu nit ñi te jaamu ji boroom nit ñi waaw loolu la woote ah, sama sëriñ wax na ne loolu ca la saaba ya nekkoon ak yonent tibi ah, sama sëriñ wax na ne jaamu ji yàlla te bañ a jaamu nit ñi dem jaamu ji borom nit ñi lool nekkoon ak yonent bi wax na loolu wax na it ne te loolu itam mag ñii fi nekkoon ci loolu lañu nekkoon woo nit ñi jëlee leen ci jaamu nit te jaamu ji yàlla mi borom nit ñi nee na loolu la fi mag ñi nekke woon waa ndax loolu dañ koo xat mu maam ndax woote googu dañ koo xat mu ne mu ne tey su ko def c'est terminé léegi kenn dootu woowati nit ñi jëme ci yàlla bu fekkente ni eh, ci côté boobu la عسى سبيلي أدعو أدعو أجيبوا داعي الله منم باتوا دعوة منسكو منسكو فالسفيه ndax daawa mooy yaa ayu allazina amanu ñaata yoon la ko yàlla wax ci alxuraan maanaam baatub daawa ci jëmmi boppam lañ munte sikkal déedéet ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana asa sabili qul asa sabili ad'u ajibu daa'iyallahi isa da'akum maanaam baatub da'wa ci boppam moom bu fekkee ni bu yàlla ne wa aiddu lahu ma stata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli tur iboona bi aduwa laay wa aduwa ku mën a wuu baatub irhab moom lañ ko génne ci alxuraan mu yàlla ne uddu ila sabrin mu daawa nañ ko génne ci noonu ngeen koy def ba alxuraan jeex kon bi bu fekkee ni bu fekkee ni baat bu tubaab yi ñàngal rek ngeen génne sànni ajja bismillah faru leen ko de faru leen ko moom waaye da koy tëb jéggi jàll comme ni ko ña ña yahuudi doon defee bu nekkee ci baat buñ bëggul kenn xam ko ñu boole ñaari kii te kole ko tafalante ko ñoom dong ñoo koy mën a ci parti pour lan pour lañ fa nekk ñu bañ koo xam ah daanaka nag de niroo na de xaw bu dul benn niroo na moom wax dëgg yàlla bu dul benn niroo na moom bu fekkente ni bu yàlla ne tur iboona bi adduwa laay adduwa kum tubaab bi ne irhab baaxut ngeen ne kon irhab tur iboona ko bay waaw eh, ki ñu del dem bàkk ne daawa ñu ne wuy daawa ba wuy kon daawa nañ ko bay ah buñ ko waaw nañ bàyyi eh, tur iboona bi adduwa laay adduwa kum bàyyi oddo ila sabili rabbika ba bu ba nañ bi tur iboona bi waxatuñ ko léegi ñi méttuñ ko waxati léegi daawa bi ñu ngi koy xeex bu daawa bi jeexee ah ñu taxu ci beneen baat rek ba ba ñuy dajji baat yi nga xam ne neexu leen ba mu jeex ci alxuraan tàkk gaa yi bàyyi ko di ko di ko jàng te ñu def ko di waa Arabie Saoudite rek innal muluuka izaa daxalu benn yoon nga koy jàng ci sa jàkka béral ko cim at mooy booy julli julli julli yi waaye budul boobu boo ko defee ñaar yoon ñetti yoon ngay sàkkal la pexe alxuraan nag duñ mën a dëkk ci kaw ah baat bu yëfar yi ñàngal rek ñu dindi ko sànni déedéet ñaareel ba itam baat bu koo xam baat boo xam ne ku jubadi jëfandikoo na ko bu mu siiw ci moom rek ñu ñu bàyyi ko loolu tamit du man a nekk nun kay dana war a jàpp ci daawa te defe ko na ko yonent bi doon def ak saaba yi na ko yonent bi def ak saaba yi sax ko noonu wax dëgg yàlla waaw bu fekkee dëgg rek kay dëgg mag ñi defuñ ko noonu de déedéet yonent bi ak saaba yi ñoom dañ koo def ba reyante jot ñu reyante ba samp ko ba mu cëpp ba nekk état islamique complet mag ñi indi wuñ fi état islamique complet état iqaamu saar lañ fi indi itaawu zakat sawmu ramadan hajjul bayti rendi tabaski tudd doom julleeb niiw miraas ku dee maye mayam sëy loolu la loolu la fi loolu rek nag mooy diine islam yi Sénégal waaye des ci lislaam lépp dara ñëw fii maanaam jëfee guñ ci dara fii ci réew mi te mag ñu njëkk ña nga xam ne ñoo di saaba yi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañoo defoon lii mag ñi def ba noppi def la mag ñi defu ah Seydina Souleymane Balde defoon na ko Samru Fuuti Taal it defoon na ko waaw euh, Cheikh Amadou Cheikh Amadou yi defoon na ko maam ñi ko def daal ñooñu la maam ñi ñi pratique woon islam daal ñooñu la euh, almaami Dramé it defoon na ko euh, am na daal ñu fi tampoon état islamique boole lépp waaye nag ginnaaw kàttan gi moo amul woon ba tax mënuñoo jëfandikoo àtte yi diine yi ni ko yàlla santaane ah wax dëgg yàlla man daal ku ne damay woote jëme ci jaamu yàlla te bàyyi jaamu nit man mënuma wax ci moom lenn lu may déglu ba xam jan yàlla lay woote jëmale ci ndax yàlla ji nga xam ne moom la alxuraan jàngale moom ku ciy woote jëmale ci ne nañ ko jaamu te bañ a jaamu nit mun ne si de wàndal ay waxam nag ba féetale ko fenn ñaareel ba itam dégg naa fi man bëggumay wax ci xëccookati addina yi ndax dafa doy waar day na waar kenn mënu ko lijjanti waaw dégg naa fi coow lu metti ci jamono yi passé yónnee nañ ma ci ay audio ba tàyyi ci sama xaas ma raaf ko noppi waaye man yàlla rek laa gëm Sénégal yëpp nag baat boobu dañ ko war a wax qul amantu billahi summa staqim fastaqim kama umirta ku ñuy gëm ku dul yàlla ab sëriñ du ku ñuy gëm ndax du yàlla du ab yonent yonent duñ liñ koy gëmee mooy yàllaa ma yónni ci lañuy gëm ab yonent liñ koy gëm mooy ndigal yii ma leen di digal yàlla moom moom moo ko santaane loolu la ñuy gëm yonent yaa nga yem ci Muhammad jeex na sëriñ bi li mu lay wax lépp da lay nettali waxi Muhammad dong soo gëmee waxi sëriñ bi te muy waxi Muhammad waxi Muhammad nga gëm bu ñu waxee lu jëw yow Muhammad nag soo gëmee sëriñ bi yaa ngi ci nax il faut nous dire la vérité al xaqu axaqu an wa axaqu an yuttaba dëgg moo gën a yeyoo ñu topp ko wax ko topp ko man yàlla rek laa gëm loolu moom mun ko sikkal doomu aadama wax dëgg yàlla man day waaru naa ci islaamu Sénégal boo ne yàlla laa gëm ñu ne lu tax boole woo ci diw ak diw ak diw lu tax nga wax ne yàlla nga gëm waaw Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mi nga xam ne moom ñuy topp ñu ne bi ñëwee def na billahi illasi la ilaha illa huwa xayaat yi booba maat yi la wax sama dund ak sama dee yàlla laa ko jox moom laa gëm-gëmu ma kenn loolu loolu suñu tubaab waxoon yàlla doomu laa gëm nag bu fekkee ni dina yàq dina yàq nit moom wax dëgg yàlla suñu maam yu baax yi fi ko ni yëpp asaru nañu kon wax dëgg kon dañ ma asaru nañ kay ndax ñoom yàlla rek lañ gëmoon biñ fi nekkee loolu moo tax euh, euh, dafa xat fi nekk nii l'islam dafa xat ndax boole ma ci ci laa bokk ci te bokkoo ci dafa bëri gëm moom yàlla lañ koy def ak ab yonent ab sëriñ dañ koy gëmal lépp lu ñu indi ci déggu ci yàlla ak yonent bi maa ataakum rasulu fa xusuwu ak ku ko mën a jox wa maa nahaakum anu fantawu ak ku leen ko mën a tere tere waaye nag bis boo nu digalee lu yonent bi indiwu dañuy bañ duñ ko def dégg nga boo ñu teree lu yonent bi euh, digle danañ bañ duñ ko def duñ ko baax yaa ngi dégg ndax it nag wax dëgg rek neexut ba neexut waaye allahuma du rek laa xam xaw ma keneen allahu muhammadu rek waaw islam allahu muhammadu rek la waaw allahu mooy alxuraan muhammadu mooy addi jeex na tàkk samaaniyatu uruf la juróom-ñetti araf allahu ak muhammadu alxuraan ak addi jeex na tàkk lu la waay mën a wax ci diine allahu ak muhammadu dong la lay wax waaye bu génnee allah ak muhammadu la mu wax rek moom du dara alxawlu ma kaana fii iqaala haddasana wa ma siwa saaka waswaasu shayaatini neexut a dégg mais dëgg la qulil xaqu min rabbikum boo bañee wax lu dul dëgg looy wax na jóge ci yàlla bis boo waxee lu jógul ci yàlla nga wax lu dul dëgg xulil xaqu min rabbikum ngi dégg kon mu ni suda mu yàlla bu ne moom yàlla la gëm ah man de bis bu ma nee yàlla rek laa gëm am ku ma ne lu tax nga wax ko dama lay am fu lay ne waaw bu ma gëmul yàlla képp ak yenent bi lan lay gëm qul amantu billahi summa staqim su fekkee gëm yàlla gi munta nekk jub gi munta nekk ndax ndax ndax idina siraatal mustaqim ah, in tutiu tahtadu jooju moo waral qul amantu billahi moom présenté yàlla su mastaqim moom fastaqim kama umirta moom moo moo moo présenté sunna amat après c'est terminé jeex na amatul leneen ku la ko gën a xam wax la ko rek la ak ku la ko gën a leeral mu mu leer ci yow waaye seen dara da cee nekkul diine ji seen yoon nekku ci yéen tamit si diine ji dañ koo defar ba noppi ngeen door fee ñëw da ngeen ko jàng di ko jàngale jeex na waaye nag yéen mi cër yi bu ngeen ko ci bëggee am muy li yàlla moom ngeen bëgg koo nangu ci yàlla mbaa ngeen ne li yàlla moom kenn du ko ko jox mbaa boo ko ko dee jox doo ko annoncé nit ñi di ko dégg waa Cheikh Gueye Gandi Galdé yàlla kepp képp képp képp la gëm ne moo di buur mooy borom mooy lépp yéen ci yàlla Muhammad képp képp képp képp kepp képp képp képp laay jëfee ay sunnaam sëñ Bamba laay roy c'est terminé bu fekkonte ni génnuma ci daara Sëriñ Tuubaa yi daara jama génn laay wax loolu dafa leer dafa leer waaye am na ci yoo xam ne ah wax dëgg yàlla day na waar fi mu nekk nii lu ñuy jaamu lu dul nit loi yi ñuy teg ci sa kaw di ko àtte du loi yàlla ni di ko àtte mais saa dëgg dëgg dëgg lan mooy jaamu lan mooy jaamu lan la yonent bi waxoon gaa yi ba alxuraan wàccee ittaxasu ahbaarahum xawmaru baabahum arbaaba min dunillahi ñu ne ko ñoom ñu ko def ñu koy rabbu mu ne ndax daaw ñu leen daganalal lu araam ngeen eh, ànd ca ñu araamalal leen lu dagan ngeen ànd ca mu ne ah mu ne loolu zaalika ibadatuhum loolu mooy jaamu ga fi ne kay ñoo ngi jaamu nag assemblée nationale kay mooy sunu kaaba Makka mooy sunu yàlla mooy sunu alxuraan ndax loolu lu moo koy lijjanti waay waay waay waay waay waay waay waay ko jege ci daa jexe ba mel ni ay xef waaye lii ragal koo wax la <laughs> xanaa lii ñàkk ko gëm la xanaa ah, xanaa lii wéere ko la xanaa xanaa xanaa daal allahumma salli ala sayyidina Muhammad danaa leen ko nettalee ti mason naa leen ko fee nettali yàgg na ba ma demee Arabie Saoudite dem di umra ji man ay une ci guddi laa dem ca Kaaba ga def samay umra ba ma eggalee génn ca bitti toog genn góor ak naar goo xam ne daal ni përëm la la melow aw melow përëm daal la rafet leer nañ ndeysaan ñëw ne ma antamin fayin antamin fayin ma ko ba léegi waaw antamin fayin ma ne ko anaa min Sénégal Eh, mu toog ñi waxtaan lu yàgg ndeysaan bam di ma won naa ma fii ñu tabax étage bii tiim kaaba gi defee abi abi la ab dëkkoon ak yu bari góor googaa ma ko wax ba yeggal ne ma yeneen bi bu dikkaatoon fii ci seen ci fii ci Arabie Saoudite ma ne ah, mu ne ma ay ay ay bomba ki ay mirage ki super standard lañ koy dàqe ma ne ko lan mu ne ma looloo wér lii gars yi di wax nii yëpp seen àddina la ñuy jiital te mu Muhammad dikkoon lépp day day périmé te su boobaa dañuy dañ koy déclarer guerre il faut mu guerraat ak ñoom ba ba guerre bu ne sipp mu ñu doon bëgg a dellu si ci ñun waaye kat neexut waaye loolu kat ba fii ci Sénégal ndax li tax egsi na fii ci mooy ku sëpp yàlla ak yonent bi rek gaa yi seen làmmiñ yi di dóor a koy ak a xas yàlla moom boole boole ci baay boole ci ma <laughs> lam yi wala borom diine ci amul day dara moom la bëgg ñu jaamu ko moom la bëgg ñu topp ko mu amata ñuy war ni ñu koy jaamoo mag ñee ko jottali ba jot yi waaye dama ne buñ la jottalee lu jóge ci yàlla jaar ci mu amat mu amat ko mu yàllaa ko jox mu amat mu amat eh, jottali ko waaye bu mag mi jëlee ci mu amat jox la itam ba tey mu amat moo jox mag mi mag mi jox la yàlla jox mu amat rek mu muttasili bi muttasili muttasiliwul ki tax ngay yow boo nee kenn du ko ne yow léegi léegi léegi dootoo doo na fi yow maanaam fekkente ne ñun dañoo bëgg ne ay jullit lañu te ku ne yàlla laa gëm ñu ne lu tax nga ne yàlla rek nga gëm waaw ku ne eh, damay jaamu yàlla du ma jaamu nit ñu ne lu tax nga ne da ngay jaamal doo jaamu nit waaw yow nit ki bañ ku ne jaamuwuma nit yàlla lay jaamu te yow nit nga xanaa da ngaa bokk ñu bëgg ku leen jaamu kon dafa am yoo xam ne di su ko xam te nag eh, wama arsalnaaka illa kaafatan linnaasi mooy loi universelle wama arsalnaaka illa kaafatan linnaasi ginnaaw yàlla yonent bi da yàlla na ko ne kaafatan li naa laa la la la laa tax ma moo tax ma woola tubaab bi teggi alxuraan sànni dem indi lu bees daal di ne kaafatan li naa lu waa universelle du doon alxuraan te ñun ñëpp ci waa universelle boobu la ñuy attewoo te loi universelle boobu am na lu ca dëppoo ak ak ak ak ak li alxuraan atte xëy na boo demee waaye am na lu bari lu ca waroog li alxuraan atte te la ca dëppoog li alxuraan atte mi ngi ci biir alxuraan te la nekk la ca nekk te waroog alxuraan alxuraan indi na ko te bàyyi lool nañu alxuraan ñu topp waa université kay ah, wax dëgg yàlla ah doy na war de xam naa bu ñu nee nun bàyyi jaamu nit daal eh, te jaamu yàlla sëriñ bu yaakaar ne yaa tax ñuy wax nax nga sa bopp kenn jaamuwu leen du ngeen yàlla du ngeen yéen ay nit ngeen comme ñun da ngeen a jàng dong nu jàng waaye nag bu ñuy wax jaamu yàlla ak jaamu nit moom ñoo ngi ko ñoo ngi ko jublu ci yàlla tëral ab atte ngeen lànk nag dee si ko atte nit ñëw tëral ab atte ngeen atte atte nit léegi yàlla daganal yàlla daganal lii nit ñëw araamal ko ngeen ànd ca yàlla araamal lii nit ñëw daganal ko ngeen ànd ca loolu moo di jaamu gi ngay jaamu nit alxuraan lu leer nañ la wax ittaqasu arba ruhbaanum xamul ko xabaarum ruhbaanum ruhbaanum arbaba min dunillahi boo ko yàlla waxee ci alxuraan te yewut benn ko déet ñooñu du du sunuy yàlla de du jaamuñu leen du du sunu yàlla yonent bi wax ko wax jooju ma nettali woon léegi ne ne ko waaw ndax daaw ñu leen digal lu yàlla tere ngeen def ko mu ne mu ne ah kañ fii ngeen toll yéen waa Sénégal est-ce que digaluñu leen lu yàlla tere ngeen def ko ah kay du jeex do xaaj digal nañ leen lu yàlla tere ngeen def ko ndax tëral nañu luwaa bu dëppoowut ak alxuraan ne leen kaay leen sànni ay carte ngeen def ko kon digal nañ leen lu yàlla tere ngeen def ko est-ce tere digal terewuñu leen lu yàlla digle ngeen bàyyi ko ah kay tere nañ leen lu yàlla digle ngeen bàyyi ko kay ndax ku jaaroo ñu doon lu téeméeri yoon euh, euh, nekkul universitaire defatu leen ku sàcc dagg sa ko defu leen ko ak yeneen Oh, kon kay wax dëgg yàlla nag ay yàllaa ngi yu nuy jaamu ci réew mi waa ci leen neexut a dégg ginnaaw ginnaaw ku la digal lu yàlla diglewul ga ànd ca mu teral lu yàlla digle ga ànd ca sabu yàlla jooy jaamoo loolu la alxuraan wax waaye ma waa jii di wax waxut sëriñ sii ci réew mi sëriñ xam nañ ne yéen xam ngeen ne du ngeen yàlla waay yéen a ko a xam te leen xalaat ne dañ yéen ay yàlla ngeen kon bu ñuy wax jaamu ak ñàkk jaamu bu leen ñaaw njort ci loolu ndax yéen kenn jaamuwu leen ah bu dee dañ leen di jaamu ngeen wax boog man de jaamuwuma leen leen de na leer dinaa leen roy nag waaye jaamuma leen tey jaamuma leen ëllëg bis bu ngeen ma santeel yàlla santaane wu danaa lank kanaar bis bu ngeen ma tereel yàlla yi naa ko def du ngeen ci man dara dara dara dara dara ndax toppewuma leen ngeen di ma tereel yàlla sant santaane waaye nag euh, bu fekkente ni bu nit yëkkatee kàddu nga wàndal ko ne yéen jullit ñi yéen diwa tax de jullit ñi yéen a tax ah sama sëriñ mii nag taxut may wax maam sëriñ sëriñ sama sëriñ mii di wax nag taxut may wax ka may ka tax may wax mooy ka njëkkoon a wax ne eh, man yàlla dong laa gëm nit dem sa rajo ba di kaas waaw te nag xam nga teg gi teg fa da ca baax teg teg fa da caa baax waaye teg gi foo tegul loolu doo tegul dara loolu yënul maanaam bu nit ki ne man yàlla dong laa gëm nga dem ca rajo ba di kaas ne lu tax mu ne yàlla rek nga gëm da nga wax ne waroo gëm yàlla rek da ngaa war gëm yàlla gëm diw ak diw ak diw ñu seet boo fenee ñu ne la waxoo dëgg ndax nit ma maqaama mu toll ni fent ñu la wax ne waxoo dëgg waaye dégg naa ko ci débat yi ci télévision bi ñu naan diw nee na waaw diwa gis ngeen ko nag diw nee na yàlla dong la gëm allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bu diw dikkee ne gëmuma yàlla topp ma diine àddina laay topp nga ne ko as kay alhamdulilah toogal nit ñi nga la man topp ma àddina dàquma ko yàlla laa gëm nga ne dee dee yàlla la gëm de nee na yàlla la gëm kon yéen da ngeen fa nekk pour attaquer yàlla ab guerre da ngeen bëgg a jël nguur gi yàlla ko seen bopp loolu moom mënta nekk yan yàlla tënlu ci jub yan yàlla